sant suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm suñu sëriñ leen ay kaddu yoo xam ne rek ñaar ko tax a jóg mooy ki nga xam ni tey mooy Cheikh si du di xalifa général des mourides dafa joo xam ni bi ko saa tegee fii mu ko teg mu wut bi tey bàyyi nekkoon ak magam bi xam ñoom la daa wax ñoom ñoom ñooy ñooy loolu leen daa wax moom lay wax moom lay jëf moom lay doxi lam ca yokk mooy lépp loo xam ne lu baax la ak fu mën a jógee bu dikkee te te te gënul bu dikkee loolu ma ci biir ba tax na mu woote woon lépp nekk benn kon mu mel ni loola ci la nekk tey ci lay nekk ëllëg li tax ñuy wax lii nag bi nga mooy dafa dañoo dégg léegi ci benn rajo boo xam ni dafa wax ni dafa jox ndigal pour mu woote ci xeeti ay manifeste yooyu sëñ bi amul jot boobu amul jotu di wax ci lu mel noonu ñu xam ni sëriñ bi lu ñu defar amu ci soxla la mu waxoon ni lu ñu diine amu ci defar amu ci yàq sëriñ Tuubaa la fi nekkal teen bi la fi nekkal képp koo xam ne yow nga ndigal mu jële ci moom muy murid yi sañ na digal mu dig dana leen digal ñu ngi ci ndigal bàyyi tere képp ku ci fekk si loolu maa ngi ci loolu te amul jotu di sant kenn muy def lenn lu noonu ndax moom Sëriñ Tuubaa la fi nekkal te Sëriñ Tuubaa julli la fi nekk kon nañ xam ni jëmm la joo xam ni lépp lu baax ma ngi ci biir lépp lu loolu nekku ci kaddu yi doomam Cheikh Baara Mati lay Mbàkke moo ko wax ci gàttal ngir waxtu wi asalaamaaleykum wa rahmatulah